l'ensemble de la communauté mouride et particulièrement le porte-parole pour l'invitation qui m'a été adressée, mais également pour l'accueil qui m'a été réservé depuis ce matin, comme vous le voyez, dans un cadre chaleureux, plein d'ambiance et plein de communion surtout. Voilà. mbokk mi doon wax ak ñun mooy son excellence l'ambassadeur du Gabon ca Ndakaaru euh, Cheikh Mouhamadou Bassir invité woon ko mu ñëw ci màggal gi Euh, moom na comme ni nga ko waxee rek dëkk bi miin na ko yàgg na fay ñëw kilifa réew ma di ko yónni ci xalifa général des mourides euh, xam ngeen ni euh, nee na ñëw gi fi ñëw mi ngi ci wane ak mbégteem ak kontaanteem ci invitation bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Bachir def na ko ngir mu ñëw fekkee bisu si Abdou Khadir bi léegi bi ñëw ci yoon la ma xamal ni xew bi ñuy waajal ci Ndakaaru muy ubbi rek Masaalikul Jinaan meeru Lambarna ak meeru Libreville ak meeru Mayomba dañ ci teew ndax meeru Dakar moo leen invité ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha xam ngeen ne am nay chef d'état yoo xam ne dañ ko teew waaye Gabon dafa am na ko lié ak Touba moo tax ñu xool ci dëkk yooyu nga xam ni seen seen tur dafa dugg ci histoire sëñ mag bi ñu invité leen moom mi nee na jot na leen ba ñoo ñu wax nañ ko ne ko nañ ñëw incha allahu taala kon daal nee na ñëwam ci tuubaa tey ñëw la ngir sàkku ñaan ñëw ngir feddali coloré ñëw it ngir wane cofeelam ci Touba ak bëggam ci Touba ndax ñëpp xam nañ ni Gabon ak Touba li leen dee dafa bëri lool te loolu it ñoom fas yéene ko suuxat incha taala